bu jegi tey dañ naan lii lii lii na am mhm. bu ñu ñëwee ci nguur changé xam nga ñu ngi wax affaire bulletin unique boo xoolee tey ak personnalité en charge des élections à l'époque l'histoire du système majoritaire le raw gàddu la mhm. ci jamono Ablaye Wade bu nekk ci opposition dafa vraiment le système du raw gàddu c'est un système mhm. unique injuste mais ba mu ñëwee ci nguur gi mais taxul mu dindi ko voilà et cetera et cetera yooyu vraiment quand même c'est un problème alors mbiru bi comme ni ko Mor waxee man bind naa ci benn téere boo xam ne nii sax daanaka mi ngi door a pare édité guñ ko maa ngi tuddee vraiment étude comparative du système de filtres dans les démocraties le parrainage la caution ma bind ci lu bëree bëri ak vraiment donc ay euh, ay comparaison yu may def ci diggante réew Afrique ak Europe yi ak yu demee noonu et comme ni mu ko waxee mbiru caution bi daanaka ni ñu koy taxawalee dafa mel ni tey dañuy dem ci benn démocratie censitaire démocratie boo xam ne ñi am koppar la ak ñi amul koppar d'ailleurs maa ngi fàttaliku ci waxtaan bi nga xam ne mu ngi koy wax di séq nañ ko ci euh, euh, Sud Quotidien may wax ne même boo xoolee en Europe la commission européenne nu mu tëti donc des droits dafa wax ne ci point 85 ak 86 mu ne c'est une forme de restriction boo xam ne en fait dafay tax nit ki bu mu mën a bokk ci e-, élection maanaam ni ñuy dépendre ci tey nu mu toll mhm. au mu dépendre ci système politique mhm. alors comme ni ma ko waxee tey dañuy toog ba sàgg rek bi daan ne bon 150 jours avant le scrutin bu dee euh, local bu dee présidentiel ñu ne cent quatre-vingts jours avant le ministre convoque une concertation une rencontre avec les partis politiques dafay taxal benn rencontre bo xam ne ni parti politique dañ ce nekk ak coalition yi ak même représentant ministre des finances nit ñi de ñoo waxtaan depuis man ba ma jam fekkee yëf yi ba léegi ba ma xam ne maa ngi yëngu ci quatre-vingt euh, dans les années quatre-vingt-seize ba léegi la daan am maa ngi fàttaliku boobu réunion yi parti mhm. tolloogu ñun ñu ngi ko doon defee salle des ops ci ministère de l'intérieur mhm. bu ñu daan nee waxtaan position ba ci gënoon a maanaam euh, tuuti ci wàllu question bi à l'époque jëf jël moo ko doon incarné dafa doon wax naan ni ñu joxe franc symbolique ñenn ñi di proposer ay dix millions cinq millions vingt mais li ma gis mooy ministre bi tout le temps bu demee ba nga xam ne moom mooy maanaam àtte mbir mi mhm. position maximale bi lay jël li nga xam ne moom la toujours ku jéggi di wax parce que comme ni ñu ko ku jéggi moo yore ay moyens mhm. boo nee cent millions sax mën na ko joxe te ñeneen ñi mënuñu ko joxe nguur gi du moins mhm. donc loolu problème la alors de sorte que je me suis posé la question est-ce que maanaam daje bi ministre bi daje ak parti yi am na njariñ mhm. parce que bu ñu ñëwee ñii dañ naan nañ ko def cinq ñii ne nañ ko def dix ministre bu ca naa leen mais bu demee dans le secret de son bureau ne trente ni mu ko waxee jaadu na maa ngi koy wax ci sama ouvrage boobu. Mhm. que tey li am par exemple dans les pays de la sous-région boo demee par exemple Mali su mel ni caution locale amul. nga dem Burkina ak ak ak Bénin di ak Côte d'Ivoire nit ñi maanaam da ngay verse par liste naan liste bu nekk junni lay verser wala dix mille mhm. wala ñu ne candidat titulaire bu nekk boo ñëwee par exemple gis benn localité boo xam ne y a peut-être quarante conseillers à élire ñu ne bépp candidat da ngay joxe junni. yow yaay dem sa bopp versel ko au niveau donc du trésor ñu jox la quittance quittance boobu day bokk ci sa dossier candidature mhm. loolu dina tax vraiment nit ñi gën a euh, impliqué wu ci élection locale yi gën ci gën ci gis seen bopp donc loolu mais dañ koy fixé ci code bi mhm. nga xam ne du nekk loo xam ne chaque année dañ koy wax ku nekk di nga xam ne mbir mi kat ñu ngi jëm ci législative wala locale question bi nangam la bu ko mhm. defee nga waajal sa bopp parce que contrairement à ce qu'on dit donc euh, d'organisation de la campagne ou des élections sauf au Niger où c'est considéré en tant que tel nga xam ne bu ñu lay delloo euh, soixante-quinze pour cent yi def naa lañ lay lañ lay delloo mhm. mais fi par exemple dañuy wax ne boo amee bu dee présidentielle boo amee cinq pour cent wala député nga am benn député wala bu dee locale yi li ñuy wax ne boo amee par exemple bu dee municipal nga am ñetti conseillers dañ la koy delloo mhm. donc vraiment laaj na pour man vraiment ñu euh, euh, taxaw ci vraiment indi ci ay coppite yoo xam ne nii mbir mi du nekk démocratie censitaire et loolu je pense que le propre de toute une démocratie mm-hmm. mooy muy mën a tout le temps remettre en cause mm-hmm. di def ay jéego yoo xam ne nii en fait donc nit ñi dinañ ci gis seen bopp waaye bu mm-hmm. fekkee ne chaque fois yaa ngi seet noo mën a galgale nit ñi rek galgal leen pour mën a continuer yore nguur wala yore say privilège mais bu boobaa risque bi nga xam ne moom moo ñuy gete mooy nit ñi bu ñu dee ba amatuñu yaakaar ne maanaam fii élection mën na soppi nit wala cette démocratie électorale mën na soppi nit. Mhm. bu boobaa nag la porte va être ouverte. aux aventures. Mhm. ou même à la rue. Mhm. nit ñi dañuy xam ne mbir mi kat kenn mënu koo soppi ci vraiment quand même yoon. léegi nañu jël beneen yoon boo xam ne donc mooy indi li am ci yenn dëkk yi déstabilisation nit ñi nekk ci ay manifestations. combat de rue ak yooyu te loolu yaakaar naa ne ci contexte géopolitique bi ñu nekk. ak la question du pétrole du gaz et cetera le terrorisme yooyu je crois que war nañu éviter vraiment nit ñi dem ba gis ne kat mbir mi. gannaaw euh, euh, kenn mënu koo jot ci ci teyug bakkan léegi nañu seet yeneen pexe ci wàllu jàmmarloo wala ci wàllu wàllu gannaay mm-hmm. te loolu baaxul ci démocratie li ma ci yokk rek mooy euh, xam nga sànq nee naa la ci jamonoy Abdou Diouf cotion présidentielle mi ngi nekkoon ci 6 millions 6 millions Ablaye Wade di dem en 2012 bàyyi ko ci 65 millions il faut que nag ay la yooyu ñu nangul ni Macky Sall bi mu ñëwee élection présidentielle yi ñu génn wàccewaat na ko ba ci 30 millions waaye loolu mooy li mu bàyyi voilà parce que comme dafa dugal parrainage. pour segg élection euh, candidature yi. moo tax mu ni jaratu ko léegi ñuy def. donc moo tax mu dugal bi bàyyi bi mhm. wàññi bii daal mhm. loolu moom il faut que ñu wax ko aussi mhm. jóge na mais la mu def moom def naa la amoon bu njëkk ba moo gën <laughs> bàyyi woon ko 65 millions waaw parce que parrainage bi problème yi mu indi uh-huh. sur 27 candidats 22 uh-huh. yi nga teg leen na rek côté jël juróom uh-huh. ma daanaka wàññi nañu indi 30 millions waaw mais dugal ci loo xam ne dafa gën a teegal mais pour l'information de ñi seetaan rek <laughs> ñu xam ni nekkagul nekkatul toujours ci 65 millions voilà 30 millions effectivement mais wàcc na ba léegi ba 30 millions. Mhm. léegi nag ci élection locale yi. Euh, am na bataaxal bu ñu siiwaloon. Mhm. ni ministère de l' dafa ni ci élection locale yi ñu jëm. Mhm. caution bi dafa nekk 10 millions. bu ci liste boo bëgg boo bëggee bokk départemental tout type d' élection wala communal tout type d' élection. ak quelque soit nag nombre commune yi wala département yi nga xam ni fa ngay nekk. ñoom seen wàllu ba ministre de l'intérieur génnewaat nañ communiqué wane ni waxuñu benn yoon ni caution bi nangam la fixé guñ ko. d'accord guñ ci. Mm. donc loolu indi coow parce que bi mu nee fukki million la rek maanaam boo dee bëgg présenter communal ak départemental il faut que quelle que soit la taille de ta liste ak ta coalition nga joxe vingt millions. Mm-hmm. nekk na loo xam ne indi na quand même. absolument tout à fait donc il faut que ñu waxtaane ko ci fan yi ñu jëm. Mm-hmm. pour xool lu jaadu. Mm. te bañ a mel ni kuy galgal nit ñi ci mbirum koppar parce que loolu baaxul ci élection. baaxul ci démocratie euh, euh, Momar gis nga loolu bu ñu ko defee injustice la ak rupture d'égalité. tout parce que tey yow bu fekkee ne da nga ñëw gox ba nga dëkk par exemple. Mhm. nga bëgg fa nekk candidat ci commune boobu rek. ak ki nga xam ne dafa bëgg a présenté wu dans les cinq cent cinquante deux collectivités bokk li ngeen euh, joxe waaw dix millions ngay joxe man bu dee benn commune muy Gueule Tapée Fass Colobane gële laa bëgg a laaj ki nga xam ne ñaari commune la wala téeméeri commune aussi dix millions lay joxe lool aussi démalité yaakaar naa ne ñu waxtaan ci vraiment ñu dem dans le sens vraiment voilà de mu ngi ni lu ñu mën a waxtaanee bëri na ñeel processus électoral bi waaye dafa ci man li ma jàngat ci euh, différentes analyses yi nga xam ne moom lañ fa jot am moom mooy en fait nguur gi yor na clé yëpp pour mën a jaaxale mbir yi ci yoon pour ñu mën a amal processus électoral boo xam ne dina mën a tax ñu redorer waat suñu blason ñeel wàllum démocratie démocratie loolu laa ci mën a déggagul maintenant nag comme ni ko moo waxee xëy na question de principe moom mooy posé ak ñu ne moom la nekk parce que wax nga ko sànq ñi ngi jëm euh, benn débat boo xam ne xëy na ñenn ñi jàpp nañu c'est trop tôt proposé ko moom moo ñeel troisième candidature u Macky Sall euh, donc foofu ba tey position yi xaw na flou jëm ci ci côté donc mi ngi noonu euh, Babacar Fall bu GRADEC moom lañ fi dalaloon ci première partie bi waxtaanee li nga xam ne moom mooy processus électoral ak contentieux yi nga xam ne xëy na nee nañ du lu bees waaye à chaque fois moom mooy ñëwaat sur la table jëm ci li nga xam ne moom mooy acquis démocratique yu Sénégal am ci wàllub élection très rapidement ñu bàyyi la nga wax sa kàddu gu mujj tàggatoo ak kàddu gu mujj daal mooy li may ñaan toute la classe politique mooy ni ñu tënku ci texte. Sénégal am nañu ay textes yu baax moom ci wàllu texte. ñoo gën a aay ci Afrique. Mm-hmm. tey boo xoolee si suñu code électoral daanaka danga naan lépp gongo. vraiment lañ ci taxawal lépp partie législative réglementaire et cetera. Mhm. mais lii problème bi texte na ku nekk da ngay seet rek nu mu la gën a arrangé rek nga utiliser ko noonu. Mhm. par exemple boo xoolee voilà mbiru tey euh, euh, euh, certificat de résidence yi. Ah mais loolu yëpp boo xoolee ci code électoral c'est encadré conditions yi ko war a joxe ak naka lañ ko war a joxe ak kan moo ko yelloo et cetera mais donc toujours ñun dañuy am un cadre juridique parfait buy régler suñuy élection muy constitution ak vraiment code électoral. mais la nekk ci cadre juridique bi dañ koy teg fële dugal ay galgal yooyu nag je pense que vraiment lu ñu war a bàyyi la Sénégal benn bopp la ñun ñëpp ñoo ko bokk tey na nit ñi nu mu tëti vraiment yombalal euh, euh, inscription yeeg nit ñi dem inscrire le reste nag ce sera un débat d'idées mm-hmm. nit ñi vraiment ci wàllu idée nit ñi indi ay programme waxtaan convaincre nit ñi pour ñu voter leen ñu ngi jëm ci campagne tey par exemple waroon ñu commencer tey di réfléchir ñu jóge jëm ci ay élection dans un contexte de pandémie naka la ñu war a organiser élection yi mhm. naka la ñu war a mën a defee campagne comme xëy na rassemblement yi ak yooyu dootul mën a amati loolu moo waroon nekk tey perspective ñu mhm. waxtaan ci ba xam dëgg naka la ñuy war a taxawee mais bu fekkee ne tout le temps ñu ngi seet nu ñuy def pour galgal euh, euh, momar mii pour mu war a bañ bindu wala pour mu bañ a wuti vraiment nekkatuñ ci démocratie donc mhm. encore une fois daal li ñaan nit ñi mooy ñu dal nguur gi liñ leen di ñaan mooy vraiment ñoom ñu fexe aussi ba problème yi am ñu jéem ko saafara permettre vraiment pression plurielle démocratique ki war a bindu mën a bindu le reste nag vraiment bu ñu ne demee ci élection yi mais population yi ñooy tànn mm-hmm. ku population yi ne yow la ñu xam ne yow la kuñ ne du yow aussi nga xam ne du yow mais mm-hmm. c'est aussi simple que ça mais dugg ci ay tension yooyu daal ak indi ay pëccëxoog yooyu franchement je pense que dans le contexte actuel baaxul ci réew. mi ngi noonu war nañ ko euh, dépassé moom wax yàq euh, ñoo ko euh, déggandoo donc Babacar Fall Gradeg moom moo nekkoon suñu gan ci partie bu njëkk seen émission c'est-à-dire ni ko waxee doon waxtaanee lu jëm ci wàllu processus électoral